asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu yéen mbokki jullit yi yéen mbokki taalibe yi ndigal jógeeti na ci sëriñ Muntaxa Mbàkke di xalif général des Mourides jaaree ko ci sëriñ Cheikh Ahmadou Mbàkke moom sëriñ Saaliwu Mbàkke di leen ñaanal ñu yàgg fi lool te ànd wér ndigal li nag moo ngi wàcc jëm ci mbooleem ndongo tarbiya yu sëriñ saaliwu mbàkke yépp bépp taalibe ak bépp jullit di si jiital sëriñ saaliwu sàll ak sëriñ abdu njaay mi ñu tabb léegi jëwriñu ndongo tarbiya yu sëriñ saaliwu yépp sëriñ baa ngi woo bépp jullit ak mbooleem taalibe yépp ci liggéeyu sëriñ tuuba ba ca xel xelkom liggéey bi nag mooy bàddali bàddali nag mooy bàcc jéeri roñ gerte roñ ngooñ ba noppi setal bërëb ba liggéey boobee sëriñ baa ngi ciy woo bépp jullit rawatina bépp taalibe bu yaakaar sëriñ Touba liggéey bi nag daañu ko tàmbali ajjuma ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru novembre képp kuy ñëw na nga bàyyi waale xel jumtukaayu liggéey bi nga xam ni moom nga war a indaale muy râteau di fourchette di bool di paan di siwo xottu saaku parla bidon ndox lépp loo xam ni rek dina yombal liggéey bi képp ku ci bëgg am lu la gën a leer mën ngaa tàbbal sa jëf wala nga bëgg tàbbal sa jëf ci liggéey bi wooteel ci 77 143 21 21 77 143 21 21 ngir juge Ndakaaru départ bi kër Serigne Touba bi nekk Colobane lay doon bu 6 heures du matin jotee barkeelu transport bi nag lépp mi ngi toll ci 2000 francs dong maanaam ñeenti ñetti képp ku si bëgg lu la leer mën ngaa woote ci 77 261 21 48 77 261 21 48 kon nag dig daje ca xel xelkom daaru xuddos daaru muhim daaru salaam li ko dalee ci 26 si weeru novembre ñu bàyyi xel ci mbuusu ndox yu ñu jëfandikoo bu ñu noppee ñu dajale ko ndax baaxul ci tool yi baaxul ci mala yi baaxul ci alam gi Yeah. min alimi